tey ñu ngi si daara euh, El Hadj Mouhamed Diop bi nga xam ne ñu ngi ko dëppee ren euh, Baye Ndiaga Guèye bi nga xam ne moo fi ga génn àddina yàggul tey ñu ngi fii di def ay reportage bi nga xam ne tey nag si waañ bi lañ dugg tey waañ bi nga xam ne moom suñu jigéen ñi nga xam ne tey ñoo fi nekk di toppatoo xale yi nga xam ne ñoo nekk si camp de vacances bi mooy daar euh, daar daara Mouhamed Diop bi ñu tuddee ko Baye Ndiaga Guèye sama jigéen yi na nga tudd. man maa ngi tudd Ngoné ñoo leen toggal ndékki di leen defaral añ di leen defaral reer di leen toppatoo daal waaw ci gàttal daal waaw ñu toppatoo xale bu baax. léegi eh, eh, lan ngeen leen def lan ngeen toggal xale yi fi mu nekk nii. tey jii nii doomu yàpp lañ leen di toggal doomu daal lañ leen di toggal añ léegi soos lañ leen di toggal reer ndax chaque à chaque fois bu ñu toggee yàpp añ dañuy eh, togg yàpp reer wa ilaa ñu togg jën añ togg yàpp reer noonu daal la ñu alterner alimentation xale yi. Ali daal boobu ba léegi daal gisuñu si benn am lu leen naqari wala ñaxtu wuñu dara daal. Ah, oh, waxaguñu ko pour ñu dégg ko nag parce que ñoom d'habitude ñoom ñooy wax plat yi ñu bëgg sax la veille lañ leen wax suba lañ lañ bëgg majeure partie wax plat bi lañ bëgg bu ko defee bu ñu xëyee ñu toggal leen ko mais pratiquement kiyaguñu daal waxaguñu daal lekk bu naqari daal wala leneen loo xam ne naka su dul noonu la ñu ngi sant yàlla bu baax. ndax jàppale xale yi rek pour di leen toggal ñuy lekk. ndax ñun ñëpp jaboot lañu kon dañoo wara jappalé xalé yi bu baax daal tay gis nga comme ni ki kii rek tay dama da yàpp lan leen di togal togal leen tamit soos leen togal ñamu soow ndax ñom yoy lañ bëgg ay caagiri ay laax luñu bëgg rek mom lan leen di defal suba bëgg ñu defaral leen ñu ndekki bu suur defaral leen seen ndox mu sedd ñu naan su heure julli jotee ñom ñëpp gis nga ñom ñëpp dañ leen di jangal xalé yi ndaw ndaw yi ñëw sax ku ci mënul japp lan lay jàngal nooy jàppe ak nooy jullee di la jàngal ak ci waañ beeg yëpp boo nekkee dem sa kër yaay ndax xam nga jigéen mooy même boo demee sa kër yaay danga war a jàng liggéey lépp dañ leen koy jàngal wutal leen ustaas yu leen di jàngal arab ni ñu war a nekk seen kër ni ñu war a jullee ni ñu war a jàppe xale jigéen ñi xamul nu ñuy sangu yëpp dañ leen koo defar tamit Seyda Aïda moo ko yor moo ñu mooy suñu yaay mooy suñu lépp daal ñoom ñuy maire yu baax daal at mu jot ñu lañuy jël ñu leen di togg ñu ci benn yoon wax dëgg sa yàlla ci waañ bi ànd ak sama rakk yi ki sama doom la kii sama rakk la man d'abord si école bi sax laa nekk waaw fi lay liggéey mais bu école tëjee duma dem vacances damay ñëw fii jàppale xale yi ndax xale fu mu nekk fu ne mag moo koy jàppale te ñun ay yaay lañu ndax ay yarkat lañu xale yi buñ ñëwee fii dañ leen war a jàppale di leen toggal di leen bégal ba nga xam ne buñ demee seen kër ya duñ xalaat seen yaay duñ xalaat dara lool moo tax lu leen neex rek lañ leen defal suñu xëyee suba dinañ togg gis nga dinañ togg dute dinañ togg café dinañ defal mayonnaise chocolat siwa yaa ngi nii lépp la ñuy defal lu ñu bëgg rek xale bu ci bu ci nekk rek lu mu bëgg rek nañ la ko defaral nga lekk. ba togg bi doy na si waañ bi togg bi doy na dépense mat na macha allah waaw xale di dinañ ñëw dinañ lekk ba suur dinañ naan dinañ leen jàppale xam ne ñun ñëpp ay yaay lañu parce que ay jaboot lañu dañoo tëj suñuy kër ñëw jàppale leen si togg gi te bëgg lu neex rek moo ñu fi tax toog ndax xale bu bëggee lu ga neex bu gisee lu ko neex daf lay jege te xale yëpp ñun suñuy xarit lañu dañuy ñëw fii wax ñu seyda lu ngeen bëgg tey buñ bu ma toggee ba pare dama leen di wax mbaa togg bi neex na ñu ne ma neex na di la woyal di la encourager daal loolu rek lañ si jublu wax dëgg dëgg yàlla def ngir yàlla koo xam ne togg nañ loo xam ne neexu ko sax dañ lay woo na la li nga li lekkoo nga daan ne lii kat plat bi bëgguma la wala dara bu ko defee dinañ la fexe ba naxtal la wutal la loo xam ne di ko lekk chaque jour gis nga waañ baa ngi ni dañuy dem dugg congélateur bi dañuy dem fële marché port dem jëndi jën dem jën ndawal gaa ngi ne yépp a ngi nii macha allah daal dañ lekk ba suur naan ba màndi lekku daal lu baax rek lañuy ñuy lekk. jamiyatul muallimat ñu organiser mo xayam fi ci école franco arabe El Hadj mohammed Diop bi nga xamni Hadj zainabu Diop moy mudira bi ba pare nek amira jamiya bi bi moy suñu 6 6e édition bo xamni def nañ ko manam juróom-benneelu yoon bo xamni ne jamiyatul muallimat ñi ngi liggéey ci li di ko def vacance bu ne di ci yar xale yi amna xale yu joggé ba Espagne amna ñu joggé ba Italie amna ñu joggé ba. Euh, Jolof am na jóge ba Louga incha allah xam naa bu ngeen duggee ci classe rek di ngeen waxante xale yi euh, wàllu organisation nag wax dëgg yàlla booba tey jamiya bi man lañu sama loxo lañ ko teg waaye nag yàlla mi ngi ñu ciy dimbili ndax euh, waa ñu nga xam ne mii maa ko bokk ak Seyda Assou Dioum ak madam lii muy Ndey Ngoone Diop ak Faat Ndiouk Faama Ndiouk mi wax dëgg yaa ak yi nga xam ne ñoo yor net voyage ba liggéey bi ci boppam dañ koo teg ci yoon parce que xale yi suñuy doom lañu jóge ci ay kër ñëw ci kër kon dañ leen a xamal ni comme jóge ngeen ni seen kër fokk rek ci kër yi ngeen ne mooy seen kër fi ñuy tëdd gis nga ko dugg ngeen fa gis ngeen ko macha allah dañ koy defar ba mu baax bërgi démb rek la Seyda demoon nooto duggi jën yi nga xam ni lañ fi doon togg wax dëgg yàlla ndawal yeeg yëpp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 déggee di ba pare ñu ngi dugg ci biir ci biir jàkk ji nan nga tudd Aminata Ba fan nga jóge ah ties randu leen bismillahir rahmanir rahim xaara rasulullahi sallallahu alayhi wa yonentu yàlla bu tedd bi dafa wax ne ridallahi ngërëmu yàlla fi ridal walidayni mi ngi ci ngërëmu ñaari waajur fa wa suxtillaahi wa merum yàlla fi suxtil walidayni mi ngi ci merum ñaari waajur jërëjëf mooy son amité ba mu ñu def jàngal benn hadis léegi kan moo ñu taril benn saar fii léegi na ñëw saaru alxuraan Dakar nga dëkk da nga ñëw si daara ji a'uuzu billahi minal shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim izaa jaa'a nasrullahi wal fajr ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا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 إنا أرسلنا نوقا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوا وآتعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستعصوا ثيابهم واستعصوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون إلا وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا صدق الله العظيم ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci yenenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni xaqul muslimi alal muslimi xamsun aqu jullit ak moroomi jullitam juróom la raddu salaami delloo nuyoo wa ijaabatu daawati ak wuyu di woote watti baawul janaaisi ak gunge néew wa wa yaadatul maridi ak seetu ku feebar wa tashmiitul aatishi ak nokkeel gu tishooli

قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به فآمنا به ولن نشرك بربنا ربنا أهدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ ساهبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شتتا وأنا جننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه وأنه كان رجال من الجن يوزون برجال من الجن فجاتوا من الإنس فجاتوهم رهقا وأنهم جنوا كما جنمتم أن لم يبعث الله أحدا صدق الله العظيم waaw yow mi jóge daara yow noo gisee daara ji daara gi neex na eh, yéen a ngi jàng bu baax waaw boo leen xëyee suñu xëyee dañuy julli dañuy jàpp julli après après ñu songu ji ñu ñu ñu ndekki Lek lek fi bagna? wa suñu paree ñu dem jang ci suñu wàccee dem tëdd wa ba ñu julli waat ñu dem ba ñu ñu dem julli ji ban heure ngeen di fi pour julli ah ñun ay 5 heures waaw lan moo soppeeku lan moo soppeeku si yow foofu. dama lan moo soppeeku de maa ngi jàng léegi alquran am naa comportement bu baax. yeah, I was just coming from America. What town in America? Um, New York. Yeah. It's your first time to come here? No, it's not my first time to come here. I came here a long time ago when I was young. Ago. You believe in chess Hmm? You are living in church? Yeah, I'm living in Chest. Where in what? When in Chest? Um, Aslam Rudamur. Rudamur. Uh, you are here for for learning uh, Arab or uh, Quran. Eh? What is what is your impression? My impression, like what I like about this. Yes. Colony? Well, my favorite thing about this college is that um, that I learn a lot of new things, and I and I always wanted to learn a lot of um,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 ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا eh, su ira está en España en Barcelona en Barcelona ¿conoce Messi? sí ah, aprender uh, en la escuela aquí ¿ah? ¿eh? Uh, ¿puede eh, llamarme alguno uh, hablar Corán? sí hay que, hay que hablar ¿eh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan ¿En una escuela que aprende es, es, árabe? Lo, lo, en una casa, una marroquina me lo aprende. Una, ¿eh? Una marroquina, ¿eh? una marroquina me lo aprende. Ah, es muy satisfecho de encontrarse aquí, ¿eh? Yo me llamo señor Mbaisis, ¿eh? ¿Y tu nombre? Soy gracias, señorita. Ok. ngi bi ñu organisé euh, école Elage Mohamed Diop euh, ñi ngi jàkkaarloo suñu jigéen ñi xamné at mu jot ñom ñoy investir di organiser dara ji duñu ménager seen effort seen temps yépp bay seen activité yépp ngir mëna réussir pour réussir tout camp de vacances bi. soxna si nan nga tudd. Adja Seyna bu Diop. yow lan nga ci dara ji. waaw ah, dara ji man maay nek présidente bi. euh présidente lan la. Ah, jamiyatul muallimaat mooy ñun jigéen ñi nga xam ne ñoo jàngale arab si Thiès ñoom benn am association bu ñuy wax jamiyatul muallimaat ñun ñooy organiser chaque année si école franco arabe El Hadji Mohamed Diop ñoo fi organiser euh, daara vacances pour jàngal xale yi diine ndax jamono ji yàqu na yàqu goo xam ne il ñu jàppale parent yi si eh, si xale yi ndax bu vacances jotee xale yi dañuy dañuy libre fu nekk seen tànk dugg fa léegi nag loolu moo tax ñu organiser daara vacances bi waaw. yaa ngeen organiser daara vacances. waaw bii mooy suñu sixième année si daara vacances. Euh, bi ngeen ko organiser léegi ba léegi yan euh, mbégte ngeen si am yan satisfaction ngeen am si organisation bi. xanaa sant borom bi subhaanahu wa taala ndax ñun yàlla daf noo sas pour ñu xamal doomu jullit yi ndax ñun ay jàngalekatu arab lañu te sunu xam-xam bi dañ kaa war a wesaare si doomu jullit yi ñu xam-xam-xam. ndax yonent bi salaa sallam nee na aarifuni borom bi subhanahu wa taala sax moo ko wax si xadiisul xudsi ni aarifuni xabla an taabuduni fa in lam taarifuni fa kayfa taabuduni nee na ngeen xam ma li jëkk ngeen may jaamu bu ngeen ma xamul du ngeen mën a jaamu ko loolu tax ñu jàngal xale yi pour ñu am xam-xam bu ëllëgee ñu mën a jaamu yàlla da ku jaamul yàlla da ngay perte te te kenn mu yër ni te xamul kan mooy borom bi ak yàlla bi mu koy bind lan moo tax mu bind ko bind ko pour mu nekk di fo ak def ay mbóoran def kaa bind pour mu jaamu ko ndax nee na borom subhanahu wa taala ne wa maa jinna wal insa illa liya'budun nee na nit ak ginne bu ma leen bindee pour ñu jaamoo moom moo tax ma bindi leen kon nag dañ kaa war a xam ba pare ñu sokkaa jaamu lool moo indi sunu toogaay bi nga xam ne ñu ngi toog fii di yar xale di tëdd si matelas yi bàyyi suñuy kër ak suñuy lal ngir yar doomu jullit yi defar jukko yi ndax jukko mooy li nga xam ndax borom bi subhanahu wa taala tëggul yonent bi lu dul ni ko wa innaka la ala xuluqin azim dana ko yow bi yaa gën jikko waxu ko ni ko yow Xuraysi nga bokk wala Banu Haasim nga bokk daf ni ko jikko ju rafet rafet nga yore kon jikko si la ñuy nawe doomu aadama te jikko na yàq ba nga xamee ni kon ñun ñii am nañu responsable boo xam ni war nañoo yar doomu aadama ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an raa'iyati nee na kenn ku ne sàmm nga te bu ëllëgee yàlla dina la laaj li nga doon sàmm kon ñi nga xam ne ñun du suñu ngóore yàlla may nu tuuti kon war nañoo xam-xam boobu dugal ko si biir xale yi bu ëllëgee si biir ñoom tam ñu mën a yaru yaru diine mën a defar réew mi mën a am jikko ju baax. am ah, man maay adjointo amira bi sunu amira mooy Seynabou Diop man maa topp ci moom aywa ñoo àndoon di liggéey daara ji te yàlla rek tax ñun nag dañuy préparer suñu daara juróom benn weer juróom ñetti weer avant daara di ñëw xam naa moo tax organisation bi fi nekk ak ni mu demee yëpp mu matale. ndax bu ñu génnee ci daara rek ñu ngiy xalaataat daara déwén ay waa comme niñ ko waxee rek ñoom ñëpp ay waa dañ ci jël ak liggéey fasteef kuñ fi fekk baax na kuñ fi fekkul ñu continuer te sant yàlla ay waa li ki nga xam ne organisation wax ko mooy li am ndax kooku mooy ki nga xam ne di Ablaye Diop chaque daara moo ñuy jëkk ubbi ci li nga xam ne moom la ko yàlla wërsëgal moo ñuy tax a ñeme itam ba mën a liggéey aywa li nga wax ci autorité yi tamit fenn fu nekk déposé nañ fa lettre ñu nag foofu la suñu tànk mën a gu yem nit ku ñu dégg ku baax nga wala ngay liggéey ci euh, gouvernement bi fii ci niveau Thiès ak fu mu mën di doon fu ñu fa mën a dem def nañu suñu leetar joxe fa waaye nag xëy na yàlla moo dogalagul seenu yëngatu waaye ñu ngi ñaan borom subhanahu wa yàlla xiir leen ci ñu jàppale liggéeyu islam bu rëy bi nga xam ne ñoo ngi fiy yar doomu julit ñi comme ni ko ki yore organisation waxe def ci lépp li nu xam pour dimbale loolu sax luy dimbale gouvernement la parce que soo gisee yàqu-yàqu yi ni mu mel ay waa ay jigéen takk takku di defar lu mel noonu di yar ay wa luy dimbale gouvernement la xëy na nag dañoo xëy na eggagul fa ñu war a mën a egg ca ñoom tey ñu ngi ñaan yàlla yegg fa waaye ñu continuer rek di liggéey ci suñu doole ndax xam ngeen ne lii ñu yor téeméeri élève ku ko yor ndékki añ reer ak seeni feebar ak seen yëpp xam ngeen ne quarante mille franc yoru la waaye nag ni ko ay chambe nga waxe dañuy daara ba noppi wëlbatiku fo fecc suñuy poset di fay ay bor yoo xam ne dafay bari di fay suñu courant di fay suñu ndox loolu daf ñuy topp daanaka ba daara dikkaat loolu nag koo xam ne yàllaa la tax a jóg nga gis lii wax dëgg yàlla ñu ngi lay ñaan nga ñëw def ci sa loxo jàppale jigéen ñii na xam ne dañoo bëgg a defar waxuma defar euh, xale yi waaye defar réew mi lañ bëgg loolu mooy suñu hadaf kon yàlla na yàlla jàppale jàppale ñëpp ñun tam ñu ngi leen di gërëm bu baax ndax lii lu am solo la ndax fekkoon ne lii amul xëy na sax ñu ñu war a xam duñ ñu xam te fekk war nañ ñoo xam ndax nag fii rek lañ nekk ci Thiès suñu siège mi ngi nii mooy fii ay waa école El Hadj Mouhamad Diop. ku ñu bëgg a xam wala kon boo bëgg suñu adresse su ñëwee fii dinañu xam incha allah adresse itam nëbbuwul su ngeen bëggee ñu joxe ñun ñëpp suñu numéro téléphone ku bëgg a jàpp ci daara ji daal ñu ngi lay tàllal loxo ay jigéen yi kese lañu. bu ngeen gisee classe yi xale yu jigéen yi ak xale yu góor yi jaxasoo noonu ci classe bu ñuy jàng lay doon waa ci wàllu organisation ñaari appartement la bii jigéen yi dong ñoo fay ne ay jigéen lañuy ñuy fanaanal beneen bi ay góor rek a fa ne ay góor lañuy ñuy fanaanal waaye su njàng mi jotee dañuy dajale benn classe. waaw ah, man association bi man maa yoreel seen relation extérieure ci association bi superviseur la aussi ci daara ji man maa koy superviseur waaw daara ji nag wax dëgg yàlla man mi yor relation extérieure dama doxa doxa doxa dox ba mënatuma paasa paasa paas ba mënatuma fu ñu war a déposer lettre déposer nañ fa lettre di nga dem sax ci benn service gis euh, chef service bi nga ne sa joxoon naa ko lettre mu ne la egsiwul loolu itam dañuy jànk dafay am blocage daal si si service yi. dañuy jànkuwanteeg moom ah dem nañu fu mel ne poste dem nañu conseil régional dem nañu mairie ci ñi nga xam ne bon volonté yi nag ñoom ñooy jëkki jékki rek jaar fi dem nañu ci déposé nañ ci fondation Servir le Sénégal suñu lettre. madame euh, Marème Faye Sall. Sall mais nag ñu réponse ñoo ngi koy xaar nag nga wax ko ne ko association jigéen ñi jàngalekati araab yi nekk Thiès ñu ngi koy xaar gis nañu li muy def ci association yëpp ñu ngi ko ciy sant di ko ci gërëm waaye ñun nag ñu ngi koy xaar ndax suñu lettre dem na fa yàgg na ñu ngi koy déglu loolu man relation extérieure maa ngi dox loolu. may encadré xale yi d'une manière générale. ban si ban plan nga leen. Euh, ñun dañuy def euh, ñoo leen defal classe de chant bu ñu waree chanter ñu leen defal également ay travail manuel yi ñun ñoo. yéen a élaboré action pédagogique bi. en général waaw mais xam nga fii arabe bi moom moo gën a dominé parce que arabe bi la ñuy gën a jàng ñun luñ ciy def presque classe de chant pour une heure de temps bu ñu wàccee le soir ñu def travail manuel def ay macramé def ay crocodile ak yeneen i kii daal ñu ñuy def ay ballet déguisé leen defal ay cerceau ñu leen koy jàngal pour xale yi au moins bu ñu fi jógee am yenn euh, loo xamante ne mën nañ koo defal seen bopp waaw. maanaam donc continuité la action pédagogique bi travail manuel mooy mooy continuité bi quoi. waaw loolu moom mooy continuité bi. yéen bi ngeen koy def léegi xale yi par exemple yan euh, performance lañ def si. Euh, ñun bu ñu leen jàngalee dañ leen di jàngal tout au début rek mais en général ñoom ñoo koy continuer parce que activité boobu loolu bu ñu demee ba à la fin ñoom ñoo koy exposé daal di koy won parents yi ñu ne lii lañ fi liggéey en plus de l'arabe bi ñuy nak ndax loolu moom mooy fondement bi. Mhm. lii moon reportage bi nga xam ne moom la ñu defal si daara euh, vacances pour elage Mohamed Mouhamed Diop kon ñu ngi dox daje ba beneen yoon.